mbokk jullit yi ba ñu feddile ne borom bi subhanahu wa taala mooyeyoo ñu sant ko ndaxte moo sàkk mbindeef yi ba mu leen sàkkee tànn na ay yonent yónni leen ca ñoom ngir ñu jubal leen mu tànn ay téere wàccee ko ci ñoom ngir ñu àtteewoo ca loola ñuy feddli ne kon ki jëf-jëf jooju moom dong mooyeyoo ñu jaamu ko nguuram gi nag bokk ko kenn ñuy feddliwaat suñu ngëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne borom bi subhanahu wa taala moo ko yebal ci ñun ngir mu rëddal ñu yoonu njub ngir mu leeralal ñu nammelu borom bi subhanahu wa taala ci ñun kooku nga xam ne moo ñu wax ne képp koo xam ne ay atam gudd na mu jublu woon ci sahabatul kiram mu ne da nga gis wuute bu yaatu lool ci jullit yi wuute bu yaatu lool ak woroo mu ne waaye jamono jooju su ngeen ko fekkee na ngeen mooy ci suma sunna ak doxalinu ñama wuutu woon te rafetal di sahabatul kiram ridwanullahi alayhim mu ne sunna boobu ak doxalinu ñooñu na ngeen ci mooy ba matt ko ci seeni dëgëj kenn nag bum leen ci génnee mbokk jullit yi ñun ñépp nañu bokk xoolaat seetluwaat saytuwaat dund bii nga xam ne moom la ñuy dund ci jamono jii ñu toll ca la nga xam ne loolu la ñuy tuddee diine loolu ñuy tuddee diine te ñu jublu ci taxawaayu jullit yi dinañ ci nemmeeku bokkaale bu fés njabar bu fés bidaa bu matale képp koo xam ne mu ngi seet société bi te borom bi subhanahu wa taala baaxee ko lu mu tuuti tuuti ci leerug diine ci jàngaleb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci leeralu quraanul karim nga seet doxalinu jullit yi da nga gis bokkaale bu bir da nga gis njabar gu wesaaroo da nga gis bidaa bu sampu bokk na ca la ñuy woon bokkaale yooya mooy boo seetee sax da nga dal di gis ay xërëm ak i xàmb ak i xaaw ak i tuur yooyu yëpp da nga koy dal di gis ñu koy jëfandikoo ci société bi da ngay dal di gis ñuy màggal ay bàmmeel di ko wër di ca sukk di ca barkeelu di ko def itam ci ay garab nga gis ñoo xam ne ñu ngi takk ay gàllaaj ca baat yaag ca pëdëx yaag ca ndigg baag ca tikk jara yaag lépp nga gis mu ngi fees dell ak ay gàllaaj danga gis itam koo waxal buy gëñ dana gëñ ci leneen lu dul yàlla danga gis kii àtte itam buy àtte day àtte leneen lu dul sariya kon société bu mel noonu mbir yu mel noonu nekk ca képp koo xam ne am nag yëg-yëg war naa yëg ne war naa soppi ab taxawaay war naa yëg ne war naa soppi ak demuwaay war naa yëg ne war naa saytuwaat alquranul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu xamaat ana yoon wa ci loolu nag ñuy yëg ci lu bir ci quranul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bokkaale moo gën a màgg bépp bàkkaar bépp bàkkaar bu doomu aadama di def ci kaw suuf bokkaale moo ko gën a màgg bokkaale boobu la yàlla gën a bañ bokkaale boobu mooy alak doomu aadama bokkaale boobu mooy neenal ay jëfam donte yiw la woon bokkaale boobu moo koy neenal borom bi subhanahu wa taala dal di ñu ko leeralal joxoñal ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déey naa la ni ma déeyee woon ñi la jiitu woon ku nekk ci ñoom ma ne ko boo bokkaalee rek sa jëf day dal di màbb te kon bés penc da ngay bokk ca ñay ñàkk yeyoo ak mbugal kon bokkaale su fekkee taxawaay boobu la ne donte da ngay julli di woor di saraxe boo bokkaalee jëf jooju yépp dal di neen nit ki dem dajeeg borom bi subhanahu wa taala fekk àndul ak yiw kon loolu boo ko nemmee ko ci société war ngaa seetaat sa bopp ak say ñoñ moom borom bi subhanahu wa taala mu ne man nii day duma jéggal mukk bokkaale ba dee ca kooku moom duma ko jéggal leneen loo indi nag lu dul loola borom bi subhanahu wa taala mu ne mun naa sukkandiku ci sama yërmande jéggal la bàkkaar lu mu bari bari te bokkaale nekku ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na borom bi subhanahu wa taala ne na mun naa laa jox lu toll noonu ci yiw te xam nga yiw bi dañ koy ful fukki yoon mu dal di ëpp bàkkaar ba waaja dal di texe bàkkaar lu mu néew néew néew fekkee ne ka ko indi daa indi ashirku billah borom bi subhanahu wa taala mu ne kooku moom dootul bokk ca ñay texe ndaxte duma ko xool bëtu yërmande kon yal nañu borom bi subhanahu wa taala musal bokkaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñ na sahabatul kiram mu ne ñëw leen ma wax leen bàkkaar yi gën a màgg mu ne loolu mooy bokkaale mooy dëngee waajur mooy wax fen mbaa seede ko la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbalee mooy al israku billah kon la muy wone moo ca gën a màgg borom bi subhanahu wa taala gën koo bañ moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kaay leen ma waxal leen bàkkaar yi alak doomu aadama ku ko yóbbu bés penc bokk ca ñaay torox di alku la mu ubbee bàkkaar yooyu nga xam ne dañuy alakaate mooy al israku billah mooy bokkaale borom bi subhanahu wa taala bokkaale nag li ciy musal borom bi suba li ciy musal jaam bi mooy mu jàng téereeg borom bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu dal di sellal amaan na day kooku dina mucc ci li nga xam ne mooy bokkaale amma li nga xam ne mooy njabar ci suñu société kon loolu moom boo xoolee rek wàllu gu nekk da nga koy dal di gis lay wone njabar bi ni mu fesee mooy njabarkat yi ni ñuy manifesté woo boo dégloo rajo dégg leen boo xoolee télévision gis leen boo jàngee journal gis leen bal boo jëlee sa portable sax ñu nga gis seeni mbir wala nga gis seeni dugg ak seeni génn ñoom ñépp moo xam rajo ya la télévision yi journaux yi ñoom ñépp bokk nañu ngir dal di wesaare ak njabar ngir dal di ko xacc mu gën a jege ñi nga xam ne ñu ngi dund ci société bi xanaa ñooñu yëguñu ne loolu ñuy def mooy asaayu fil ardi fasada mooy wesaare yàqute ci kaw suuf ndaxte laa yuflihu saaxiru xaysu ata borom bi subhana wa taala mu ne njabar du texe mukk fu mu mun a joge nu mu mun a mel lu mu mun a sàkketu borom bi subhana wa taala mu ne du texe te ku jëm ci moom itam doo texe kon mbir mu mel noonu ku koy wesaare ci société kon kooku day war naa ragal yàlla dal di dellu siwaat xanaa ñoom dégguñu waxu borom bi subhanahu wa taala ki mu wax ne am na doomu aadama yoo xam ne ñu ngi taxaw ay taxawaay yoo xam ne soo leen waxee ne bul yàq ci kaw suuf ñu ne la man damay defar njabarkat boobu jàpp na ne fenam yooyu jàpp na ne defer la teqale boobu muy teqale diggante ay nit jàpp na ne defar la sarax yooyu muy digle te mu nekk al bidaa mu nekk zulm mu nekk shirk mu nekk kufr moom jàpp na ne day dal di defar ndaxte sarax yooyu ñuy digle lan la bidaa la bokkaale la tooñ la kéeféer la képp ku ko gëm rek am na ndaan boo xam ne day ñëw ci moom la gën a néew ca ndaan ba mooy da nga julli ñeen fukki fan borom bi subhanahu wa taala mu ne aw ma ci soxla ndaxte zahabta ila sahara aw istamata ilayhim ñeen fukki fan nit ki di julli ay julli ñaata julli la julli ci biir ñeen fukki fan yooyu yëpp borom bi subhanahu wa taala mu ne duma ci nangu dara ndaxte yaa ngi dem ci njabarkat yi yaa ngi déglu njabarkat yi loolu nag mooy kañ ba nga dégloo njabarkat bi mu wax ba pare nga ne ko waxoo dëgg lañ lay def sanction boobu amma bam la digalee sarax nag nga ne ko wax nga dëgg nga génnee ko mu wax la nga ne yow dëgg gis nga ma yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kafara ma unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku day moom weddina la ñu wàccee woon ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam naam weddina ndaxte borom bi subhanahu wa taala def naa ko ne taallumu sihri kufrun jàng njabar rek kéeféer la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu man ataa kaahinan wa saddaqahu fi ma yaqul faqad kafara ma unzila ala muhammadin idan haada kafara mu ne képp koo xam ne dem na ci njabarkat mu waxal la nga ne ko wax nga dëgg lam la digal nga def ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne alquran moom weddi nga ko kon loolu ñu dal di ci bàyyi xel bu baax a baax te ñu dal di ci mucc ci jamono ah doon na lu jafe lool kon borom bi subhanahu wa taala mu ne yàqkat ñooñu ak ña leen di jàppale boo leen ne bu leen yàq ñu ne déedéet ñun kay yàquñu innama nahnu muslihu ñu ne ñun dañuy defar de dañuy dimbali nit ñi ci seen wërsëg yi dañuy dimbali nit ñi ci seen sëy yi dañuy dimbali nit ñi ci seen tukki yi wallahi kazabu fen nañu de ku munalul boppam nooy munalee keneen laa yaalamuna al xayib kenn xamut lu fàddu laa yaalamul xayba man fi samawati wal ardi illa allah ñi dëkkee asamaan ñi dëkkee suuf kenn xamul ëllëg illa allah kon njabarkat boobu wax la ëllëg nga gëm ko kon kafarta hadihi l aaya kon weddi nga aaya boobu kon loolu nañ ci dal di bàyyi xel bu baax borom bi nag dal di feddli mu ne xamu leen ala innahum hum almufsidun innahum hum almufsidun ñiy saytu lan nañu arab gis nañu doole waxu borom bi subhanahu wa taala ndaxte da koo dëgëral innahum ñoom ñii hum ñoom dong nag al mufsidun ñoo yàqkat yi kon keneen loo yàq ci kaw suuf àggagoo ci seen yàq ñoom kon loolu nit ki da ciy war a bàyyi xel saytu ci moom ci boppam dal di saytu ak njobootam bu dee waxu borom bi subhanahu wa taala ci lii nga xam ne mooy bonu shirk dinañ gis ne borom bi jàng bi sax la xaraamal moom ñu gis borom bi subhanahu wa taala dañu wax ne wa ma kafara suleyman walakin shayatina kafaru yuallimuna annasa sihra wa ma unzila ala almalakaini bi babila haruta wa marut wa ma yuallimani min ahdin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur loolu rek doy na ba nga xamee ne alyahud laanatullahi alayhim ba ñu dundee njabar di ko wesaare léegi nag noppaleku nañu hunaka man hum axbas min alyahud léegi gis na ñoo xam ne ñoo gën a bon juif gën leen a féete gannaaw alladina yurawijuuna sihra ñi nga xam ne léegi dañuy manifesté wu ci njabar ñooñu ñoo askanaloon njabar suleyman alayhi salaam borom bi waxul ne suleyman njabarul de daa wax ne suleyman du yéefir ah kon nag kay jàng njabar di ko jàngale ak ñaay dem ca ñoom di leen gëm fii hukmil kafara ñun ñu ngi ci atte kéefir des nag dina leen génnee ci milla wala du leen génnee ci milla waaye hum fii fii hukmil kufr ñoom ñu ngi ci atte kéefir fekkoon ne nag islam mooy atte saaxir moom ah darbu sayfi ala unuqi laa yuqbalu tawbatu li annahu laa yumanu min sidqi fekkoon ne islam ay atte moom njabarkat moom bu wéree ne njabarkat rendi rek ku murtat sax bu nee tuub naa ñu ne ko waaw waaye njabarkat moom kullu saahirin kazab ndaxte kenn du wóolu waxam fenkat la bu ñu noon day tuub ñu ne ko uh uhu saahir duñ ko nangu loolu rey rek rey rek kon bu ñu demee ba sehru toll nii kon dañuy seet société bi la ñuy tuddee diine dañ ko war a seetaat bu baax a baax kon borom bi subhanahu wa taala mu ne seytaane yooyu day ñoom ñoo génn topp ndaxte ñooy jàngale njabar te nag fitna boobu duñu jàngal kenn nag lu dul ñu ne ko ah ñun dañu yónni ngir ñu nattu ñi gëmul fala takfur bul weddi de bi maana laa tataallam sihra fa takfura billah bul jàng njeber nga weddi borom bi waaye gars yi insisté ne ñun day dañuy jàng fa taallamu wa kafaru ñu dal di jàng nag dal di weddi borom bi subhanahu wa taala borom bi junjal ñu ci mbonu njabar rek mu ne noonu loolu ñuy jàng nag amul njariñ amul benn benn benn njariñ ndaxte lu tax wa yataallamuuna minhuma ma yufarriquuna bihi bayna almar'i wa zawji mu ne bokk na ca la ñuy jàng nu ñuy def ba teqale ñaar ñuy sëy xam nga ni loolu jàmm nekku ci saaxir mal'uun njabarkat moom fu mu ne dañ koo rëbb ndaxte njabarkat buggul jàmm njabarkat buggul déggoo njabarkat buggul wér njabarkat buggul ku am wërsëg njabarkat ku mu bëgg rek mooy ki dal di taxaw dal di jaaxle feebar na wala xuloo na wala xeex na wala tëj nañu ko wala jàpp na ne day torox kon nag njabar ak ki koy def ak kii jëm ci moom ñépp dañu torox fecckat beeg li muy yées yépp moo tane njabarkat ndaxte fecckat moom li mu bëgg mooy jàmm li mu bëgg mooy wér li mu bëgg mooy déggoo li mu bëgg mooy alal buy jub dëkk sax loolu lay dal di ñaan yàlla naa fi fekk jàmm yàlla naa fi fekk déggoo yàlla bu ma fi fekk xeex yàlla bu ma fekk xiiroo yàlla bu ma fekk ŋaayoo yàlla bu ma fekk ku feebar ndaxte kum fa fekk rek moom mbiram du dal du sotti kon xoolal fecckat bii ni muy baree caaxaan ak ni mu yéesee ak ni mu gënee njabarkat bii ak ñaay dem ca njabar ibadallah istaghfirullaha mina ya taawadu billahi min alsihri walsahara inna allaha gafurun rahim